wasalaatu wasalaam ala mawlana ngi leen di nuyu sëñ Xaasim ci site bi di Xalifa Bassir TV ak Farokh fii ci préfecture tey dañ fii def ni ñuy tudd ni ñuy la passé defoon nañ ni ñuy tudd CLD donc si Daaru Salaam si njiitu sous-préfet bu Poos Koton ak chef service yi nga xam ne ñoo nekk si département bi teewal fi gouvernement bi dañ ko defee woon si Daaru Salaam si CRD bi moom lañ ko baaxoon def at mu nekk suñ jubee gàmmu Daaru Salaam comité bi dana dajee ak sous-préfet ak chef service yi si Daaru Salaam bëgg-bëgg yi nga xam ne comité bi dana ko am si gàmmu bi dama concerné chef de service yi nga xamné ñoo nek fii si département Nioro ñu jox leen ko ñoom itamit ñu jël seen tontu wax ne li comité bi laaj kenn ku nekk dana ci concerné ñu waxoon ne danañ ko def comme ni ko comité bi bëggee da nga xamné dépassé na leen danañ ko yéegal ci kaw ci ñi nga xamné ne bi ñooy seen kilifa ba fu moy jotti ba ci kaw kaw loolu moo taxoon tey nag suñ ko defal na ak biir danañ ñëw fii ci préfet xayma waxtaan lañu defoon ci Daaru Salaam da nga xamante ni moom lañ jëloon comme décision ña ko jëloon préfet dajalewaat leen chef de service ak comité bi dañ leen di soññ laaj fi ñu toll si liggéey bi ak la ci des soññ leen it xàggale fii ak gàmmu ak ku xam ne ku ne xam ne gàmmu soreetul loolu moo waroon daje bi tey comme niñ ko xamee dafa di ko faral di defee gàmmu gi nag soreetul sa bit ñu koy màggal si daaru salaam comme ni ko baaxoo di def si jital cheikh mahamadul basir moy ya, khalifa général daaru salaam bàyyam moo sosoon gàmm 1929 ci dekk bi ñuy wax Ngambi bam mu dekk bi ñuy wax Madina Ndewen mu woyé ko fo Ngambi la ko sañtee 1929 ba 34 mu sañti dekk bi ñuy wax Madina Ndewen woyé ko fo ba 47 mu sañ ci dëkk bi ñuy wax Daaru Salaam wooye na ko fa ba fii ñuy waxee yow nii bi ko yàlla gërëmee wàcce 1977 ba leen di wax xalifaam bi Cheikh Mamadou Mountakha wuutu ko ci xilaafa gi moom it wéyal ko bàyyam doon defee bu wéyal ko ba yàlla moom it ko wàccee ko 2004 Cheikh Mamadou Bachir ñëw toog seen place moom it wéyal liggéey bi ñuy ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te am jàmm moom mboolem di wax moo doon assisté lay dama la radiyallahu gàmm googu nag lañuy ñuy waajal tey moo ñu moo ñu dajale woon fii wasalaam comme ni ñu ko baaxoo ci programme rek programme boobu mooy continuer mooy waajal ko ndax gàmmoo màggal bi du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ma ko waxee ma fekkoon suñu sëriñ Mawlana Seydi Hadji Omar Ndao sosoon ko di ko màggal ah di ko yàlla gërëmee wàccee ko njabootam continuer di ko màggal te màggal boobu day continuer ba fekk àdduna ngay dox rek daaru salaam gii dana continuer di màggal bi di di salaam guddi la goo xam ne guddi gu am solo la guddi gu màggal bi mu ngi woy si loolu makru kon guddi googu mooy guddi bi gën si guddi yi moom lañ tëgmal guddi googu nag ki nga xam ne moom la ñuy màggal yàlla moo ko njëkk màggal moom màggal na boppam daan na woor bisab altine saaba yi laaj ko lan moo tax ngay wax altine mu ne altine si la juddu kon màggal nañ ko ma suñ borom si boppam màggal na ko ndax wax na ne inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla ak malaaka yi mu ngi julli si yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne yéen ñi gëm yàlla yépp julli len sur bi sa kon lool magal ko kooku nak su la dimbele nga nek fi diko magal fekke guddi gi ko magale la la ci wax moy waaj ko ci dayo waaj lepp ko do ne guddi gi laaj nako ko si si ñun ñi xam ñoy organiser si walu préparation si walu sécurité si walu lepp lu ci aju rek danañ def lu ñu man ngir guddi gi ko guddi ko rafet ndax guddi gi dëppoo ak ñuy màggal waajtaayam dëppoo ak ak ak ak melokaanam moom yonent bi salaa salaam kon juloolu nañ lañ toll ñu ngi waajal guddi gi di wax ñëpp ñoo xamante ni am nañ fu ñëw fii ci Daaru it nañ waajal guddi gi waajalee ko ci pas-pas waajalee ko ci teggi waajalee ko ci bëgg nañ fexe guddi gi mu jaral ñu lu nekk ndax ki ñuy wàggal moo tax ñun ñu am yalla mo ne ko man bind na la yow yonti ngir sama bok bind na ni fépp ngir yow boo xëy ne nag moo tax ñu bind la suñ koy màggal waro koy dencal da nañ jox yonti bi alayhi wasallam ak guddem bi suñu alal yeb nañ jox yonti bi alayhi wasallam ak guddem bi suñu taab yeb nañ jox yonti bi alayhi wasallam ak guddem bi suñu doole yeb nañ ko jox suñu pexe yeb lepp lu guddi laaj pour guddigo ko rafet hmm. ñun nañu jaral lu ëpp Mm-hmm. nañ soññ suñu bopp si alal soññ suñu bopp si xam-xam soññ suñu bopp si temps ak kàttan lépp lu mu lay rek nañ ko jël joxe ko mm-hmm. ndax ki ñuy màggalkat jar na loolu ëpp na ko sax mm-hmm. moo wax na ne ku bëgg si man ma bëgg si yow wax na ne sax moom ku julli si moom benn yoon yàlla dana julli si yow fukki yoon ku julli si yonent bi salaa fukki yoon yàlla julli si yow téeméer ku julli si yonent bi téeméer yoon yàlla dana julli si yow junne dañ ko julli ci yentou sallallahu alayhi wasallam jullee yoon ya. mune ne mbaggam yentou bi ak sa dañ danañ dañ danañ dañ danañ risolo ci buntu aljana loolu rek jarna ñew magal yentou bi alayhi wasallam tay julli ci mom lépp istighfar kon yeb ni anda wajal guddi googu lepp lu mu laaj nañ ko def dañ yalla yobbu ñu ci jamm ñu fekk ko ci jamm magal ko ci jamm mu nekk suñu faju haaju nek suñu faral bàkkaar nek suñu yëkkateku si saay ak si baati khalifa sama bu Basir yàlla ko fi yalla yàggal lol te mu am jàmm mu mboolem di wattu sidna maulana si laaj ma ndaw jall rek moy gën leen ñaax moy ñi amé organisation ndax awa gamu gi kenn demul ci tante bi di organiser du gamu di wéso ji kenn du bané di organiser kon suñu organiser gamu gi mo tax gamu gi gan yi ñëw tànn daru salam am yene magal fi julli yentou sallallahu alayhi wasallam ci sen pàkkab sëriñ bi lol mo ne fi ñom niñ war def moy dimbal la organiser ndax ñom lañuy organiser do leen di dimbalé moy lañ lay digal na ne defel ni wala jaarel ni wala togel ni yow ya tax dañ bëgg tek la ci jaaral la ci anam yo xéne soko nango da nga am place bu baax boo xamante ni da nga tok togay jek bo boo am ni guddi xawna yagg waye place bañ day tek si anam bañ da fay tege soko nango da nga gis ne guddi gi sax dañuy yah waaye day gaaw ci yow ndax danañ mom sen yitte yépp moy organiser affaire mu jaar yoon danañ am jamono yo xamni ci tolo mbir ñu ñëppay bëgg dugundo te bunt yi des fois day xat su ko defé suñ tolo fofu ñi organiser am ñi organiser yépp nañ jàppalaat ki organiser mom yéene la am sëriñ bi sant ko muy def mom liñ ko wax mom lay def liñ ko wax mooy mu jaarale nit ñi si yoon teg leen si yoon ànd ak moo it teggiñ ko mat sëpp te daayira bi noonu lañ ko xamee teggin la jiital respect lañuy jiital kuñ wax defee nii ñu ngi lay ñaan yow gan bi wala dëkk bi ki fi dëkk su la daayira bi waxee defee nii defee noonu lañ lay wax njëriñ lay ba si yow njëriñ lay ba si ñoom ñuy organiser ndax ñoom kat ay temps lañ jël ak ay fan waajal ko sukamu gi passé eh, ba suba ga rek daal commencé eh, ana waaj jënd ko kon bëgg mu rafet ba def bu kenn yaakaar ne dama ñëw si buntu bi ñu téema dañuy wacce sama dara wala dañ may xép wala dañ may déré du lo lim do rek modi ñeppay bëgg dugg do dugandoo te ñëpp mënu ñooy dugg loolu moy tax léré ñu tej buntu bi pour organiser er bo gisé ñu tej porte rek so ñu fekk ñu tej ñu lay ñaan ko mëna do ko rek taxawal xaar leen te présenté so taxawé présenté ñom dañ def pexem dugal la dugal ñëpp ñu dugg te mën naa am sax booxaloo du am te it booxaloo boobu tax ñu koy éviter mooy ñu ne mën na si am gaañu mën na si am daanu mën na si am ñi nga xamante ni ñëw nañ si gàmm gi te gàmm indiwul leen leneen na leen indi booxaloo boobu mën nañ si profité jëlal nit seen matériel moo xam téléphone la moo xam saag la moo xam kalpe la moo xam leneen la te loolu suñ ko éviter yàlla mën nay dogal ñu mucc si yooyu kon ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ñëw si porte yi dañ fa fekk ñu nekk waa daayira bi wala gendarmerie wala police yi nañ jéem a def nànk suñ defee nànk ñoom ñëpp danañ dugg te suñ duggee dañ leen jox place yoo xëy place yu baax la ndax ñoom ñoo tax ñuy organiser siège yañ fa gis ñu teg nit ñee tax teg ko basan yañ lal nit ñi ñoo tax ñu nag ñooy defar seen plan ni côté bii nii la côté bii nii la côté bii nii la yow mi ñëw nag fu ñu la wax ne toogeel foofu toog fa soo fa toogee yaa ngi si gàmm bi kon ñun ñep nañ and waaj ko ci yar ak teggin ak talib bu ma sekk ak respect bu ma sekk ndax dëkk bi di Daaru salam dëkk bu ñu ormal la pàkk bobu ñuy defee mawlud bi muy tànt bi place bu ñu ormal la kër khalifa bi kër bu ñu ormal la kër rakam yi kër yu ñu ormal la jumaa ji jumaa ji ñu ormal la fi nga xamne moy mooy raw bu xalifa eh, Cheikh Sida ma Ndaw ak njabotam ya fa nek fofu pàkk bu ñu ormal la kon képp ku fay dem xar ma boobu nañ ko yóbbaale na nga yóbbaale teggin jooju na nga am teggin ju mat sëkk kuy dugg si jumaa ji su mi say dàll téye ko ña nekk si porte jumaa ji ñoom it nañ nañ la accueillir accueillir bu aw yoon te ñoom lañ koy defee ndax loolu lañ xam lu ëpp ay at ñu ngi fi ñoom naan nañ affaire bi léegi kon ñii ñëw di gan nañ tënku si li leen ñuy organiser di wax ndax loolu suñ ko defee dañu yombal seen liggéey ñoom ñuy organiser dañu yombal ñoom it seen i siyaar ñi ya nga xamanteni ñoo nekk bi ci résidence khalifa bi fuñ koy ziara ñoom itamit li ñu wax fa la rek lañ leen di wax suñ la waxe rangal ko ziar naaj na wala leneen na bis bobu jax na lu rek ba kat yàgg ni ànd ak yar tey gi lal bis la ko gi laaj la place yi laaj nañ ci teggu ndax ñu dajé yoolab magal ci yëtu salaa salaam loolu daal mooy li misaal bi nga xam mo moom bu bëggoon wax wa salaamu alaykum wa rahmatullah sant leen di dalal gan di leen xaar ñi nga xam ne ñooy bàyyeekoo si réew mi bitim réew am daaru pour ñëw fii ñu ngi leen wax bisimilah yi ne ñëw si jàmm fekk fi jàmm bàyyi fi jàmm màggal ko ci jàmm màggal gi jeex mooy gàmm gi jeex ñu màggal juddu Yonent bi si jàmm mu jeex dañ dajee gërëmal yàlla ak tafa ak ak ak yokkute daraja si saayir ak si baati allahumma salli ala sayyidina Muhammad